am nañ salaire moom laa lay wax dama ne la boo xoolee boo xamee lan mooy concours professionnel. ok nekkuñ des directeurs on est des professionnels de la santé. mais pour nga bàyyeekoo niveau infirmier dem niveau anesthésie. ok te ngay def concours professionnel. concours professionnel boo ko boo ko defee normalement danga war a am pécule de formation. loolu am loolu xam nañ ko ñun suñuy aînés yi nekkoon. léegi pécule de formation moom lañ leen joxul. moom la ñu joxul. ba pare joxuñu frais de mémoire. loolu c'est c'est combien pécule de formation ñaata la woon. c'est c'est c'est c'est c'est la c'est la moitié de ton salaire qu'on te donne nag joxuñu leen loolu yéen léegi ngeen du doo leen si ngeen c'est pas normal quoi. pas normal mais mais est-ce que yéen bind ngeen euh, wax ngeen ko ministère bi. lu effectivement depuis daaw depuis l'année passée ñu ngi nekk si ginnaaw ministère di leen demander li ñu leen wax nii. ministère bi lan la wax lu mu tontu. ministère ba léegi nii. sourd oreille la ñu may déggu tontu tontu wuñu mais est que jàppoo ni kon parce que pour man ministère bi daf fi nekk pour ñi nga xam pour gérer formation yi pour gérer hôpitaux yi pour Sénégal mun a dox mais est que par exemple autorité sanitaire bi moom am na intéret que pour santé bi jëm kanam yéen na ngeen di jëmal santé bi kanam moom mu ne du du du mu réticent du def du def dara euh, di leen teg euh, lu nga xamante ne mooy ay gàllankoor est-ce que il a intérêt pour faire ça. non man li ma jàpp mooy. Hmm. le ministère de la santé. man li ma jàpp mooy ki nga xam ne ni day liggéey ci secteur de la santé. surtout ce la ne l'anesthésie réanimation nga xam ne mënoo dem opération san pour autant nga am ces gens-là. Mm -hmm. le minimum qu'on demande à l'État mooy nañu accompagner durant cette formation pour nous mettre à l'aise te loolu wàññiwu ko dara te dana dafa ko doon defal suñuy aînés pourquoi mu bëgg ñu ko xeeñ d'autant plus que nous on a fait le concours. anesthésiste dafa manqué Sénégal wala. non anesthésiste manque criard la nekk Sénégal te ñoom xam nañ ko.